aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki Touba Argentine ñu ngi leen nuyu leen siyaare bu baax a baax di siyaar waa Touba Argentine TV leen ñaanal suñu borom gën leen a dëgëral kàttanal leen tey ñëwoon fii si studio bi doon fii fas yéenee barkeelu ci genn xasida ngir waajalee ko gàmb gi xasida koo xamante ni mu ngi bokk ci xasida yi sëñ Touba yi ñu fas yéene koo barkeeloo def ko addi Sëñ mu jëm ci gàmmu gi faasal xilaam yowma bil xayrayni insaa man yakfini إن شاء من يكفيني الديرين فاز خلام يوم بالخيرين إن شاء من يكفيني الديرين أقرأت رب الله كوني عبده وخديم عبد الله في الدارين ذكري وذكر الذي قد كان لي بحبيبه المختار في الكونين كافرته سبحانه عند الهداء واتى بنفس الهام في الاثنين رمت سكور لخابد الكفى الأسى anni wa anni yasrifu naarayni wajadu waji lila si saaxal muna liya waxdahu wa yaxiini alhaarayni naajaytuhu wa jaabani bil husni bi قد سرت للمختار كالجارين يا رب صل وسلما في سرمد أبدا على من جاد بالبسرين على البرايا خيرا دورم ترى من مدى يكفي لي الزهرين سلي به لك دار إساؤنا فخني بي أبدا سلهرين kanzi kitaabun min ka xat jaana be zikrul hakiimun yaksiful xammayni ribhi tilaawatu wa salaatu ala nabi wa kafaytani bi ma sa sammayni gudu bi mahan والكاذبات سوائد لي وسور بسما مسكت بالقرآن حبدا للعلي ويقيني الديرين بالقيرين masaktu bil qur'ani abdan lil ali wa yakhini ad-dayrayni bil khayrayni di Sëriñ Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokk Touba Argentine ñi ngi leen di saaraat bu baax a baax di saar mbooleem sunu kilifa yi nekk dëkk bi yëpp di si jiital jëwriñ ñi nga xam ne moo fi nekkal Sëriñ Tuubaa mooy Sëriñ Ñankoobu Gey ñu ngi koy saar bu baax a baax a baax di siyaar sama mag ji ma fi nekkal muy Serigne Cheikh Gueye ak waa Touba Morone maa ngi leen siyaar bu baax a baax nekkoon ci waajtaayu gàmm gi xasit googu ñu doon barkeloo muy faasal xilaay mi def nañ ko àddee Serigne Touba ci gàmm gi bu ko defee kon li nga xamante ni moo jëm ci wàllum gàmm gi te Touba Argentine di ko taxawee saa su nekk mu jëm ci eh, wàllum njàng mi eh, lu am solo la ndax ni ko waa Kër Serigne Saliou di di ko taxawee ci muxaddimaat bi Euh, waa Touba Morone ak waa Touba Lignane di ko taxawee ci Mawahib bi waa tubaa Caution ak waa Touba Capitale di ko taxawee ci jësu bi lu am solo la di ñaan léegi suñ Touba defal ñu ci tawfeex ñu defal ñu yoolub gàmmu te defal ñu jàmm ak salaam bu baax a baax a baax suñu dëkk bi te defal ñu fi aw yu bare bare bare defal ñu li nga xamante ni dañ koo digg ci ab tukki muy xam-xam mm, ak ak ak lu lu mën a suturoo fa nekk fan dëkk muy Sénégal yan na nu ko fii suñu borom defal bu baax a baax a baax a baax ñoo ngi jégalu ci kàddu yi bu wéer a wéer wéer ak njàng mi nga xamante ni xaw naa si ñoo ngi koy jégalu mbokk yi bu baax a baax di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh